magie moo leen di may kooru biddew ñëw ci wàññi. ah jëkkër tey fii nga génn. macha baax yi <laughs> yaa koy def ci man. merci kontaan naa trop. déwéniti leen. fekkee déwén. baal nañ waaye. baal nañ yàlla boole baal. amiin su fekkee at yu bëri. amiin xéwal yokk. amiin sax ci kër gi. amiin merci kontaan naa trop ci yéen. mais tonton bu dul ngay am. Ah. xam si meeg te ñëw. asalaamaaleykum. maaleykum salaam. maa aju leen. déwén di baal ñu àq tant Assane. baal naa la bu yàgg. salaamaaleykum. déwén nit waay. la ñu baal nañ la baal ñu àq. ça va ana Mass. ci saa mooy jël xanaa gis nga ma sax xool ma xool ma lii laa def. lii xeex duñu baax ci. dama ko oyofal ci korite bi di ko baaloo àq rek nag. def ko la ay ca yal nañu yàlla boole baal yaay. yaa yaa xool waaw nga def ci bi la laa def yaay. waaye moo du tajatina dëkk bi. xeex daju baax ci. te nag macha allah sa piis du la mere de. yaay man rek. baal ma àq tonton. waaw ah, baal naa la baal ma. dem naa ko tonton dëkkandoo sax ak a mën a ñëw. baal ma àq ma ko jaar ma ko ko nuyoo Assane. gaa ñoo ma ko gën a. ci àdduna de. <laughs> yaa ngi ay waay sama. waay yaay yow yaa ngi coono ma. mu ne nga fekk magistrat bi nuyoo ma. man sama yaay rek laa am ku ko tuuti rek considéré wu la. waaw yow tamit tey bésu it la yow tamit nag tey tey bi tam jàmm jàmm laaj de. Hmm, hmm. jàmm la ci bisu it tooñ ko la neex daal bisu it nga ne ko baal ma àq rek mun la baal naa la te nekkul ci xolam baalu ma la yow waxal li ngay wax. waaw li nga sant sa tag de. merci léegi nag lan nga def ci waañ bi. waaw gars yi lu ñuy xaar. waaw Assane mi xam na fi metti aw ma borom kër léegi lan la woon man damaa sëy ba divorcé. ah man de bu la takkoon du ma la divorcé de. xam nga lan la cuuj day xam ndekkam yow sax doo xam doo cuuj nag nga nag day xam ndekkam ngay mel ni bëri nga ndox nii nag ma fekkati ma taxaw nga may wax ay affaire du am nga jëkkër wala amoo jëkkër yow ma ne nga dug bërëm ko yow sam ginaar ci mbuus man ma dugal ci poos dindil dindil yow loo yàkkamti yow sàcc li dafa yàkkamti rek may li ngay sàcc ni sa wërsëg la tey bisu it la ñuy baalante ak ah da nga woon sama yaay tey laa lay torturé ba mbuut tane la ngay mel ni kaña nii dindil doomu waañ ngay nuroon yow est-ce que juddoo ci waañ ah Assane boobu ndaw bi ni xooxu sum <laughs> kaay ñibbi wala ma yuuxu la sàccee pataa nga te gàcce xajul ci pataa dangay jeex dóoral yox yox bi gaaw dama la yuux sàccee sàcc bu pataa sàccee sàcc bu pataa demal yaa sa poulet baa ngi nii sauce bi frite bi ginaar gi crudité bi tànn sa bu la neex rek. man de maa ci sauce bi. Ah, waaye biddew mën nga ne bés bu nekk rek ak fa ngay génn. lool du waxu gan en tout daal tey nun bégee xàppi lekk ba suur gan yow la ah, ah, moom maa ci boxeur bi. ëpp naa wax. jox ko yaa sa ganaar gi ceeb a gën ci moom mu des ci sa biir li damay lekk ba ci kanam. yaa tey la korité dafa gan la gan nga ko ganale fii sa kër la dafa. ki nekkatul lekkal lu neex. waaye yaay li yëpp da kaa mën a lekk. xanaa man dangeen maa yéenewul ci ganaar gi bu ma lekkee ba def denc ndekki suba lu des ñu jox ko ko. bu leen ko ko forcer lekkal ceeb xanaa ceeb du ceeb ganaar la ceeb bi am na ganaar. gan sax du yeewi béy ah kii kat daa war a jug ba ci kaw bërëngul dem julli. ah sama xel dal na nag. incha allah suba jàmm bëgg naa ñu bu ko yàlla dogalee. d' accord d' accord bay dem rek après ma déposé la. waaw na gën a góorgóorlu nag. sa soxna baax na nga jàppale ko. supporté na ma. bul tas yaakaaram nag benn yoon. na doo ko def baax a baax. am na leen yàlla allah. dëgg soxna si. maa def sant ba. ñas la ñas Kumba Abdoulaye. dafa julli gën a. yàlla sant yàlla. saa ñu sant yàlla bu baax. man ko comme ci koñ bi lañ dëkkoon. di mbokk yeeg ñëpp ñu ne pourquoi pas ñu yegg ziar ñëpp. Ah, voilà yiw daal. ñoo defoon ci appartement bi. xam soo dëkkee ci koñ moom dëkk fa dëkk bu rafet su julli jotee dangaa war a ñëw baali si ak looloo taxoon nag ñëw fii ñu ngeen yàlla macha allah. merci merci. yàlla leen yàlla bindal tiyaabi si li ngeen def nii. yàlla yokk am am bi. yokkal ñu si diine bi. yàlla musal ñu si lu bon. yàlla jàmm sax waay. amiin amiin dañu daan xaaral jaar. Ah, kon ñu ngi dem. waaw yoon yemul ci benn. ah toog leen waaye bu leen yàq waxtaan bi. dañ leen la rek. dem leen te ñëw. biddew de léemu naa la ba pare macha allah sànca bi jekk na. cey waay ndeysaan.

ça comme que neex na la rek kon man kontaan na chérie. Mhm. moo leen doon may kooru biddew